l'ensemble du gouvernement ànd seeg euh, ki nga xam ne mooy maître d'œuvre journée bi muy monsieur Daouda Ngom le ministre de l'environnement euh, mu ànd ak euh, kilifa administratif yëpp monsieur le gouverneur le préfet le sous-préfet ñu ñëw it fekk fi monsieur le maire de la commune de Padoua mu dalal ñu ak les services techniques Ageroute ak ñi ci des plus maintenant ay partenaires euh, monsieur Pierre mu ngi nii taxaw na présenté le programme alimentaire mondial nga xam ne moom it def na ci euh, don bu am solo ci wàllu koppar ñu ñëw fekk fiit population yi ñu teeruñu ci li nga xam ne dafa bokk ci lu am solo ci programme son excellence le président Bassirou Diomaye Faye euh, ci li ñuy tuddee activité citoyenne investissement humain ci activité citoyenne mooy di def ay mbir yoo xam ne ci mandarga li muy mandargal mooy mobilisation wala wala yéeg-yéeg bi ñu bokk ñun ñëpp ni ñoo bokk réew mi ba war a tax ñu mun a jagleel benn bés ci suñuy bés ci loo xam ne njëriñu ñëpp la donte bés yëpp dañ koy def mais bii ñu ñu fësal ko ak euh, waaye mu doon loo xam ne luy am njëriñ la ci réew mi am njëriñ ci euh, doxalin yi moo taxoon mu lancé journée yi soo seetee ñetti édition yu jiitu yëpp nag ñoo ngi ko defoon ci wàllu set setal ak euh, assainissement ak curage caniveau yeeg ñoom seen bii ñu def ko ci lii ndax dafa dafa dafa tombeek li ñuy wax euh, journée nationale de l'arbre nga xam ne yàgg nañ ko taxawal Sénégal muy journée bu am solo ndax ku wax garab wax dund àdduna bi ñuy dund bu demoon ba garab amatu fi defe naa dund dootu fi am suñu dund xam nañ ko ñàkk nañ koo xam suñu dund dafa dépendre trop ci garab garab nag moo tax société yu bëri dañ koo joxoon cër boo xam ne daanaka dafa sacré mooy dañ ko doon jox gëdd bi ñu joxe nit ba boo ci daroon jël dara sax day fekk mu doon soxla waaye doo dagg rek pour le plaisir ni damay dagg ci ay ci diine dañuy dem ba ne benn xob sax boo xoolee dagg ci garab na na fe fekk mu mu méngoog soxla boo am waaye toog rek mu neex la rek nga nga nga dagg ay branche sànni loolu dañ koy aaye kon loolu buñ koy jàngale ci diine science ñëw ba feddali ko ci jamono joo xam ne ñi ngi wax réchauffement climatique ñi ngi wax àdduna boo xam ne jaxasoo na tàngoor bi léegi gis ngeen ni mu bëree sedd gi wàññeeku na daanaka réew yu mel ni suñu réew yi amatul sedd ñun bu ñuy ne xale période hiver bi da doon métti mais léegi daanaka au mois de février mun nga sol sa t-shirt di doxantu. loolu ay réalité la yu ñu gis lu ñuy lu ñuy werante ñu gis ni nag day jaadu lenn ci li andi loolu mooy li nga xam ne lu yàlla mooñaale woon àdduna la te nit ñi ci seen i jëfin ñu dem ba dindi ko fi ñoom ñi ko fi dindi nañu góorgóorlu delloo siwaat ko fi àdduna bi dafa verton carrément ci garab waaye nit ñi ñooy ñëw di déboiser di dagg soo demee tey fi ñu dese ci àll dese ñu ci forêt muy Casamance monsieur le ministre xam na ni bis bu ne ak waa service am waa eaux et forêt ñu leen di delloo njukkal ak ñëpp ñu ciy liggéey bés bu ne ñu ngay xëy di xeex di xeex di xeex pour li nga xam ne ñu ngi koy yàq foofu di dagg garab yi di ko rawale yenn saay mu jaar ci yeneen réew nga xam ne bu ñu moytul dina dem ba li am feneen ak feneen ci Sénégal moo fay am mooy ab désert euh, loolu dina doy waar kon suñu responsabilité ñun mooy ñu fexe ba loolu ñu delloo su ko fi Afrique nga dafa di particularité boo boo boo jëlee carte àdduna soo demee Google Google Map wala Google Earth nga tiim àdduna di nga gis ni at Afrique mooy continent bi gën a jaune soo xoolee Europe dafa verte nga xool Asie dafa vert mooy garab yi ak forêt yi mais soo ñëwee Afrique quelque point verts ngay gis la ca des yëpp dafa jaune mooy désert la désert du Sahara désert du Kalahari yeneen ak yeneen te suñu moytuwul nag fi ñu jëm du baax moo tax li ñuy wax les impacts du changement climatique ñun Afrique ñoo koy gën a sentir yeneen continent yëpp waaye ni ngeen gisee mu verte noonu Europe du loo xam ne rek nature bi kese la tubaab yi dañoo fonk garab fonk seen environnement fu ñu nekk rek ñi ngi ñi ngi ñi ngi planté di replanté am ay forêt classée yoo xam ne kenn sañu faa dugg naan da ngay laal garab ñun nag ñoo xamul valeuru garab moo tax appel bi ñuy lancé Sénégalais yi mooy nañu fonk garab xam ni suñu dund dafa dépendre ci garab te mu doon ay ay mouvement spontané kenn ku ne gis naa benn initiative boo xam ne fële ci Casamance ñu ngi ko tuddee une femme un palmier loolu yu mel noonu mun nañ ko def fu ne fii mun nañ ne un Dakar waa un arbre moo xam sa buntu kër sax nga ko nga ko nga ko ji mun nga ko saa yoo xëyee arrosé ko tuuti ndax li muy laaj bariwul bu ñu ko defoon léegi ñu amaat un environnement sain te di féliciter ministère bi aussi ndax nee nañ ma garab yi fi nekk yëpp muy cocotier yi ngeen gis muy baobab yi nga xam ne mi ngi meññaat lu ñu waroon a dagg la ndax ba ñu waree defar euh, defaraat stade Iba Mar Diop dañ ko waroon raser yëpp. ñoom ñu ne garab yi balaa ñu koy euh, buddi sànni nañ ko essayer yéeg récupérer dem planter ko feneen fu ko soxlee mais tey gis ngeen garabu guy yaa ngi nii di meññaat loolu réflexe boobu dañ ko war a am ñun ñëpp ci sàmm euh, environnement la ak sàmm garab la bokk kon président la république dafa jël journée bi jagleel ko ci thème bi wax ni garab mooy suñu kaaraange ñun benn ñaar suñu koom-koom dafa dépendre ci garab ñu fexe nag ba bës bi ñu tànn garab yëpp baax na mais ñu tànn garab goo xam ne lépp njëriñ la ndax dina andi ker waaye dina meññ loo xam ne ci koom-koom mun nañu jural lu bëree bëri bëri muy garabu mango garabu mango dina indi ker waaye garabu mango ci saison bu jotee dina dundal waa réew mi bu ñu demee ba am lu ci ëpp mën nañ ko exporter dina dundal industrie ndax mun nañu andi ay industrie yoo xam ne euh, dinañu transformer def ay jus de fruits ak yeneen ak yeneen kon loolu symbole bu ama am solo la euh, bi nga xam ne président de la république tànn na ko ñuy soññ Sénégal yëpp nag ñu dundal bés bi man dama ñëwoon rek ubbi waaye solos bés bi dëgg mooy dem su ëpp euh, ëllëg incha allah moom soo son excellence président la république dina dem lancé ko fële ci Touba Mbacké muy bërëb boo xam ne ñëpp xam nañ ni dafa bokk ci bërëb yu soxla garab zone boobu yëpp donte démb ak barki démb ay àll nga fa woon waaye bokk na ci li symboliser ni désert bi di avancé ak ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu sàgganee garab kon moom dina ko def ëllëg mais message bi ñuy lancé mooy journée bi lu symbolique kese la waaye kenn ku ne na fexe ba am programme am ci garab moo xam sa biir kër moo xam sa buntu kër moo xam sa village bi nga soqi ko wala ay périmètres yu ñuy jël dem di fa saxal garab di wax tamit ni lii day lancer juste euh, euh, programme bi ndax vacances yëpp bu soobee yàlla euh, action citoyenne yi ñu bëgg a def boole kook ndaw ñi rawatina particulièrement ndaw ñi les jeunes bokk na ci li ci am solo gannaaw li ñu bëgg boole kook génie militaire li ñu bëgg ci mbay mi ak li ñu bëgg ci dem di defaraat yenn écoles yi yenn classes yi Euh, ak li ñu bëgg ci continuer def les activités d'assainissement et de curage lii jëmbat garab dina doon benn volet bu ama am solo ci programme citoyen bi nga xam ne nañ ko def ci vacances. particulièrement euh, à la euh, man ndaw ñi moom li ma leen ni wax toujours réew mi ñoom ñoo ko moom du ñun ñun liggéeyatuñu pour suñu bopp donte duñu ay màgget waaye man gëw ma ni ñun mën nañu amati ci àdduna lu ñu amutoon loo fi amati rek da ngay tegle waaye la nga koy jëfandikoo dëgg-dëgg bëreetul donc avenir suñ koy wax ndaw ñee tax donc ñun ñoom la ñuy liggéeyal wala lu raw ñoom sax seeni rakk yi ñëw ëllëg kon ñoom ñoo war a porter liggéey bi donc li ñu leen di ñaaxaat rek mooy ñu concentré wu ñu focus ci liggéey bi bañ a topp divertissement yi wala diversion yi nga xam ne ña bëggul réew mi jëm kanam ca la ñuy dëkk suba ngoon nañu def focus ndax tey yàlla dajale na ay conditions yoo xam ne bu ñëpp joxantee loxo ñu takk suñu ndigg rek nañ ko doon defee démb bi muy métti gëm naa ni ci at yi di ñëw Sénégal dina jël beneen dimension dina jël beneen envergure dina jël orientation boo xam ne ñëpp dinañ xam ne fi Corée du Sud jaar fi Chine jaar fi Turquie jaar ak feneen ak keneen ak keneen ba Maroc di fa jaar tey Sénégal ma nga ci tànk yooyu te loolu ñoom ñoom ñoo ciy profité kon ñu continuer di leen woo rek saa su son excellence le président la république lancé ay programme soxla ndaw ñi man ak sama gouvernement ñu war koo conduire na ndaw ñi spontanément jóg te ànd seek patience ndax garab gi jëmbat nañ ko tey de waaye du meññ tey ku yaakaar tey tey nga witti doo witti waaye condition yi ñu ko jëmbatee fexe ba jël suuf soo xam ne ànd na ak moom def ko jiital ko def ci liñ ci war a def te bis bu ne ñu jaar arrosé ko moo tax ñu am yaqin ni bu soobee yàlla fii léeg diir dinañ ñëw witti kon réew it noonu lañ koy tabaxee fondamentaux yi mu am solo fond fondamentaux yi ñu fi fekk moo baaxuloon loolu il faut ñu noddanti ko te ci fan yi di ñëw dinañ cee wax ak lu bëree bëri bëri Sénégalais yi fondamentaux nag suñ ko noddatee ba pare ca lay mën a nga mën a commencer di teg ay briques yuy tabax gratte lu ko may rek du sotti kon di continuer woo ndaw ñi ay une mobilisation forte et exceptionnelle xam ni la ñuy jëmbat bu soobee yàlla man maa leen ko wax avec assurance nag ndax tey toll toll naa foo xam ne mun naa ne tiim naa mbir yi càmbar naa ko liggéey naa ci ñetti weer xam naa fi ñu jëm ma wax leen ko ak assurance comme ni ma ko mës a waxee ci lépp lu may def ma jox leen garantie ni fañ leen ne woon fa la ñu jëm incha allah gannaaw yàlla amul lenn luy dund ci àdduna lu ko mën a te kon la ca des ñoom ñu gën a takku ànd ak patience def bloc autour de ñi ñu ji jiital te wóolu leen fu ñu leen joxoñ ñu ànd ceeg ñun bu boobaa dinañu gis très très bientôt les premier résultats les premiers fruits de cet engagement incha allah muy njëriñu Sénégal di seen njëriñ ñoom di seen njëriñu waajur.